ko yàlla yërëm foofu mu jëm gënal ko fi mu jóge yàlla na rëccu li mu yëq demee foofu te njaboot gi aussi borom bi teg ci loxo ba ñoom ñëpp ñu màgg ak jàmm jël fardeau bi li seen papa doon daw ñu jël na nangul ko ko te ñun ñi fi nekk liñ ko mënal moom mooy di ko ñaanal rek waaw di ko ñaanal te aussi tamit toujours euh, li mu fi bàyyi woon xeex boobu moom la ñuy bëgg jël en main ko waaw loolu la amoon si lu wax te ñu ngi remercier aussi tamit euh, suñu gars yi ñu invité waaw noo bés bi moom ça euh, c' était super waaw c' était super sinon lenn rek euh, lañ si am moom mooy regret bi lim fi nekkul loolu rek moom moo ñu si xaw a metti quoi mais c' était une journée super ji nga fi mu arrêté woon foofu lañ bëgg commencé ñun ñun ñi fi nekk waaw foofu lañ bëgg commencé pour mun a gën a yëkkati lim doon li mu doon dox léegi ñun ñëpp xam nga moom benn la woon mais dañoo bëgg def benn group benn go euh, bloc léegi la mu doon xeex ñu jël ko en mai di ko euh, taxaw si euh, li ñuy lancé jeunesse bi mooy ñu dellu si waat démb xool si seeni parents yi li ñu doon def ndax lii amu fi woon waaw jéem a di roy extérieur loolu du njëriñu fii ñun xamuñu lii lii du suñu yëf nañ dellu si waat nekkaat am kilifa moom moo ñàkk moo de moo de léegi si dëkk bi dellu si te jël parent yi def leen ni kilifa boo amee kilifa yenn yu bëri doo ko ñemee def waaw doo ko sax xalaat loolu moom moo am solo ñàkk kilifa bi léegi moom moo posé trop